maa ngi leen di gërëm di leen sant euh, di nuyu d'abord l'inspectrice d'académie madame Fatoumata Diallo nga xam ni lii ñu def fii ci ndigalam la moom ci mbaaxam moo ñu woow woo des divers acteurs de l'école pour ñu montrer le comité dialogue social comité dialogue social nag lii yitte moo di fexe ba fépp fu mu dégg euh, jafe-jafe ci l'école mu sol dàllam pour fay ko nak nak, euh, dafa melni ni ni waxtu wu ne waxtu wu ne ñu ko defé ci école bax na wante waxtu wi la raw ndax wax dëgg yalla euh wéré ngi ni ñaari wéré ngi ni l'école bi wat na l'école bi nak yang na yëgutu du tay moo tax it sunu ndajeb tey mi dajale nañ fi syndicaliste yi dajale fi parents d'élèves yi euh, dajale fi société civile bi ñi nga xam ni xamante wuñu woon sax te yàlla def rajo bi moo leen boole ñoom ñëpp xamante nañu fi euh, ñooñu ñëpp nag waxtaan nañu échangé nañu déglu nañu syndicat yi euh, liñ fi liñ fi dogal itam moo di bis ni tey jii dinañu sol suñu daal dinañu seet kilifa yi yore réew mi maanaam yu yore dëkk mi notamment le préfet ak inspecteur académie bi ak ñu yore délégué de quartier yi dinañu seeti itam kilifa yi diine yi ndax Ah, réere wu leen mbir ni kilifa diine yi am nañu loo xam ni mën nañ ko ci njaboot gi loo xam ni keneen ku dul ñoom mën nañ ko moom daal cib tënk moo di rafet nañu njort ni eh, problème bii nga xam ni mi ngi dugg ci njàng mi rafet nañ li njort ni dina ci def ay jéego loolu nag bu ma ko waxee ku xool histoire u xam ni cees lépp lu fi musaa xew ci réew mi daan nañu déglu fu ne wante daan nañu déglu Thiès te ñaari cees proposition bu musaa def rek ci réew mi ñaare ak problème ba lu mu kawe kawe Thiès bu musaa def proposé rek proposition yàlla daan nañu saafara ba pro daan nañu dimbali ba problème boobu saafara loolu daal laa ci doon dolli di sant euh, madame Fatoumata Diallo l'inspectrice di sant itam sama xarit natango yi yëpp yi ma bokkal comité bi. Euh, di di rafet njort ni liggéey bi ñu ñu ñu ñu madame Diallo euh, euh, jox rafet nañu njort ni bu soobee yàlla dinañ ci am ndam. sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax di sant aussi kilifa gi nga xam ne mooy inspectrice bi nga xam ne dafa fexe ba président comité dialogue social dajale nu ñun ñëpp ñun ñëpp mooy ñun ñi nga xam ne ay parents d'élèves lañu ñun ñi nga xam ne ay jàngalekat lañu ñun ñi nga xam ne ay ay ay ay syndicalistes lañu. problème ñu fi soulevé xam nañ ko wax nañ ko débattre nañ ci nag débat bi aussi amul complexe amul préjugé maanaam ja faraluñu kenn dañu fexe ba li nga xam ne suñu intérêt ñun l'école bi dox ndax nak ñi picc yi naaw sax xam nañ la ko une crise te lan moko ko waral loolu waxtaan nañ ci danañ ci waxtaan kilifa yi def nañ ko wax promettre nañ ko jangale kat yi ndax ñaari ñaari force ñaari doole buñ taxawee ku nekk sës ñuy xëccoo buum bu daggee ñoom ñaa ñàkk ku jëkk bàyyi gagné et l'état c'est doux les enseignants c'est nous aussi jàngalekat yi ñet ñetti poñ li ci gën am solo yokk wax nañ ko ñaari poñ mooy indemnité yi ak seen carrière

mënul dem ndaxe du gune yi responsable doon responsable am xam-xam xam-xam ak priorité ci priorité ci am réew bu mel suñu réew mi mooy wér gu yaram ak xam-xam président inspecteur syndicaliste niveau de dépassement actuellement ci suñu réunion bi nous en félicitons dañu ñaan syndicalistes yi ne bu dem bi xam lay ñu ku ne rek troisième force comité dialogue social nous dugg dans le problème bu dañuy xam nga

syndicat des enseignants libres du Sénégal authentique bokk ci G6 syndicat yi nga xam ne moo syndicat yi ñuy wax ni ñoom ñoo gën a représentatif waaye bokk ci dialogue social li nga xamante tey moo ñu fi dajale di ko rafetlu d'abord initiative bi jóge ci inspectrice bu Chesville. mu dajale fi tey euh, jàngalekat yi responsable syndicaux yi dajale fi APE dajale fi imam yi lépp pour dox jàmm jàmm nag ku koy woote syndicat yi ñoo ci jiitu ndax jàpp nañ ne lekkool bi nga xam ne école nationale du Sénégal la bu ci jàmm di bu ci jàmm di am syndicat yi ñoo ko war a dox moo tax bi ñu woowee ci ndaje mi tàngam lu wuñu ko dañoo ñëw fekk si leen ñu waxtaan waxtaan boo xamante ni tënk nañ ci ay proposition proposition yi ñuy tënk bi ñuy euh, doxalee li nga xamante ni mooy suñuy ñaxtu mu jëm ci wàllu ndëkkuwaay ndàmpaayu ndëkkuwaay jëm ci wàllu carrière jëm ci wàllu formation biñ ci waxtaanee kaddu yëpp daje nañ ne wax dëgg yàlla li ñu wax lu mën a nekk loo xam ne ñoom ñu koy rafetlu kon ñu ngi ciy ànd ak ñoom. yeneen euh, proposition yi génn tamit mooy euh, kuréel gi nee nañu euh, proposition yi def syndicat yi mooy ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu wàññi grève yi ndax ñoom dañoo bëgg a jël question bi problème bi en mais dem ci autorité yi waxtaan ak ñoom waaye bu fekkee dañuy doxal ay grève semaine bi nañu doxal ay grève ñoom waxtaan yi war a defak ak autorité yi du mën a sotti du jur dara donc proposé nañu ay pour pour ay def nañ ay proposition parti syndical jël nañ ko en question bu ñu yeggee ci kuréel yi nga xam ci lañu bok man maa ngi bokk G6 euh, Samba camarade Samba Fall bokk fédère muy ñaari anti yi xam ne ñoom nekk actuellement décrété et mot d'ordre bu ñu demee ci ci base bi dinañu waxtaan ak ñom wax leen proposition yi nga xam mom mo moo génn fii ci ndaje mi engagement yoyu lañu jël euh leneen li ñuy rafetlu également mooy wax dëgg yàlla taxawaay bi nga xamante ni IEF taxawee na ko bi mu ñëwee ba léegi taxawaay boo xamante ne taxawaayu taxawaayu kilifa la taxaw njaaxaanaay tëdd njaaxaanaay donc loolu bokk na si li nga xamante ni kàddu boobu mooy li nga xamante ni neutralité moom moo am ci dialogue social ba tax na ku ciy wax da nga ciy wax lu rafet waroo féete fenn waroo féete parti administration waroo féete parti syndical li ñuy boole daal mooy école loolu la ñuy dox di teg ko ci dëgg ba keroog jàmm di dellu si jàmm na Euh, ndaje mi nak ñaan ñu yalla mu law ba yegg ci autorité nga IA mi nga xamanteni mom mo ci circonscription bi law ba ci préfet ba gouverneur etc. ndax dañoo ñaan ndaje mi loolu la ñaan jël dañoo bëgg ci mi ndax école outil de travail ñun bu ñu sañoon école tey wax dëgg yàlla du am benn grève du am perturbation loolu daal la ñuy ñaan ñu ngi rafetlu ndaje mi jërëjëf.